ñu jiital ñi nga xam ne ñoom lañu dénk responsabilité réew mi nañu yokk seen yërmande ci askan bi te góor góorlu góor góorlu luy yombal dundu askan bi parce que nit bu tollee ci situation yooyu la mu daan foro kës néew foratu ko ba pare nga yokk dund bi yépp lépp yokk moo tax ma xalaat ne suñ politiciens man seen xam-xam yi man jaaxal na ma dama yaakaar ne xam-xam bu bari ak i pexe moo tax ñuy dénk nit réew mooy man am naa xam-xam am naay pexe yu ma mën a defee saafara ci seen jafe-jafe yi su fekkee mënatuma saafara ba seen dund di yomb seen lekk di yomb seen ndox di yomb man su boobaa lan moo tax ma jiitale leen parce que dañu jàpp ne am nga solution ci mbir mi dañu jàpp ne sa xarañte yegg na fa dañu jàpp ne say pexe yu rëy yegg na fa wàññeeku moom xel xalaatu ko léegi moom kay ñaata moo yokk te léegi nit ñuy yokkee sax dafa ñaaw du ñu doubler dañuy tripler lu daan jar 5000 nga yóbbu ko 15000 loolu kenn mësu ko gis man dama ne am na loo xam ne nii sax yokk bi yeggeewul noonu laxisme bi moo tax rek nu neex waaye rek defee sa mbir liberté totale mais am na yenn yokk yoo xam ne da ngay xool xam ne lii du lu raisonnable li ko waral mooy amul contrôle bu normal kenn waaye ni ñuy yokkee jéggi na dayoo loo daan def benn ñaar nga koy ful wala ñaar ak lu topp mbaa ñetti yoon pour nga mën a am li nga daan loolu lu metti la te loolu yàlla da koy régler yërmande jooju nag ñu ngi leen ciy ñaax ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax